Alin. Kan enggak eh, ada. Alin. Kan enggak ada. Alin. Ibu sama Alma aku masih bisa nyebakas. Alin. Apa Alin cerita boleh? Alin. Alin. Alin kan nih? Alin. Kau jangan nih? Ah. Allez, viens voir Khadija. Allez, descends s'il te plaît. Voilà salam. On s'est mariés. Hein. On a eu un joker. Hein. Ah, Parce que c'est hein. allo ah, waaw ah, parce que seet bi waaw. parce que seet bi waaw. parce que am na jëkkër. jëkkër ju bees. on est mariés. on nous aime. yàlla dañ ko faral benn xam bi yàlla dinañ ko baax. yàlla dina ko nangu. yéen ñi nga xamante ni si da ngeen doon toog naan Aïssa dama ko. température waaw perte ngeen. Aïcha dem na perte ngeen Aïcha di nga bëri takk dënnu yoo joxe nag. Aïcha am fa am fa gars yi am fa am fa gars yi takk dënnu. salaamaaleykum. takk dënnu yoo joxe am fa ku soxla célibataire am na. Ah, man commencé woon naa dajale ci cag cag bi. pour nga takk pour pour pour la. pour takk Aïcha. am fa gars yi takk dënnu moom daa fente daal moom dafa oh, fente daal Aïcha. xoolal fente kaay foog ñu xoolal loolu la ah mais félicitations ah. félicitations félicitations yàlla doon sa. yàlla boole seen baju ngeen am ci ay njaboot yang barkeel yàlla yàlla sàmm yang yàlla sàmm yang mau yow moom sunu xel dal na ci ah lii sët bi mais sët bi waaw sët bi waaw sët baa ngi léegi bàyyi bàyyi bés ba nga dugal ma yow affaire da affaire da takk bi affaire da takk bi indi gros xeere wow kongu dëgër géej sëy bi barkeel nga am ci ay sayyidina Muhammad ah yalla yalla ya dafa jamm yalla ya yalla ya dafa jamm Oh là là oh, On est fiers de toi